mbokk yi ñaari xale yaa ngi ci digg géew bi Bébé Less moo ñu féete à gauche Yeso eh <laughs> Bébé Less Yeso xale yaa ngi noonu Bébé Less eh mi dara la de ah waaw Bébé Less Yeso daw na song ko génn na géew bi moom Bébé Less eh xale yaa ngi noonu cey làmb journée production. Bébé am na benn avertissement Yeeso mbokk yi dafa mel ni Bébé xees moo gën a ñor jël nañ da lay daan da lay daan wala waaw waaw Yeeso daan na Bébé Yeeso daan na Bébé daa jël tànk ba plaqué ko waaw gëmul ni daanu na waaye daanu nga muñal muñal muñal làmba ngi noonu foo jëm da nga daanu daanu nga kay moo ngi laajte ba dafa daanu daanu nga Bébé Less daanu nga tubaab nuyu ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay fay. ci loole ñu ngi nii. tey ngay bëgg grand combat tey naka nga ñëwee. waaw comme ni ñu doon ñëwee rek. waaw tey mais ute na nag ndax grand combat la laal tey. du ñu gis ngay xool sa adversaire. boo ko xoolee. dama ko xiif rek. dama mu toll nii jar xiif li des bareetu. waaw waaw waaw moo tax instant dama yàkkamti ndax waa Tamba dañu ma yónni yàkkamti ma ko waa loolu tax. combat bi tey dina am xeex. lépp combat mënul yomb lépp dina ko am waaw. bi mooy sa premier grand combat. waaw bi mooy premier grand combat bi. tey tekk rek xam ne dañ ñëw yónni yàkkamti waaw. baax na kon ci kanam. Adama si waaw. Mbër nuyu naa waaw fay naa la. looy ñaangal. waaw non ñaaxul ma sax dañoo dañoo ñëw suñu taa rek xam ne bis ngay loolu quoi. sa waay neen dalaa waaw waaw looloo waaw xam xamul li nag moom xam naa xamul li ma ko defee mu jigéen non non dina xam ni xam la laa def damaa bëgg bis bi kon jeex na. ma mooy sa premier grand combat wala. di sant yàlla bu baax nag di ñaan yàlla mu jam kanam nag. tey bés bi lan la laaj. waaw bis bi mooy li mu laaj rek tey xam ne saa yi lu yomb ndax mbër mu ndaw ne yaa ngi rêve di bëre grand combat comme yàlla dogalee xam ñu am ko kon nañ koy fonk xam ne lii tamit yombul ndax suñu morom yi bëri ñu ngi si di ko rêve te ko kon nañu sant bu baax a ba a baax di ñaan yàlla suñu mébét mooy ñu bëre daan yàlla yàlla ko mottali mais ni ma lay mel ni kenn jàppale ci mystique de waaw affaire naa saa yi moom alhamdu moom wax dëgg yàlla boo bëggee dégg dëgg alhamdu alhamdu dina am xeex lépp lay am incha kon baax na ci kanam dañu wane suñu boobu léegi ci kanam dañu wane suñu boobu. incha allah rabbi jaajëf waaw. mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi combat bi dox ci diggante Ramdan. ak ki nga xamante ni mooy Bathie Seras numéro 2 Ramdan moo féete à droite Bathie Seras moo ñu féete à gauche journée mondiale production arbitre baa ngi koy laaj ba xam pare na am lu mu mu taf na ci kanam gi laaj na Bathie Seras ku sifflet boobu de dal na xale yaa ngay lewaatoo Bathie Seras numéro 2 Ramdan. Ramdan cokaas na léegi bàcc dóor na daw nañ jàppante waaw vite fait mbot na ko dalay tegal 16 daan daanoogul lu mu ko def da koy yenu da koy dóor na ko waaw waaw Ramdan daan na ko taw ci kawam Ramdan daan na ko waaw waaw xolal ma xale ya xolal ma xale ya da ko wër yenu ba ci kaw doo suuf lamba noonu bàcc seeraas numéro 2 daanu na Ramdan daan na ko bàcca nga ca kaw tribune wala Ramdan nga ca kaw tribune ba cey làmb xale yaa ngay ñibbi xale yaa ngay ñibbi xale yaa ngay ñibbi waaw maa lay fay. Alboury yóbbante na ma ci yow. ah. yóbbante na ma ci yow. lan la la yóbbante. ah lan la yóbbante. nee na da ngaa wéerul moo tax jël avance. man Alboury mënu ko maa wax ci moom dara. ndax lan. dama dama dama lekkagul comme bu ci weccet ñu ne antar man ak Alboury lan mu mën a ci. baax damaa lekkagul ci ci am bi weccet. lekkagoo ci lamb weccet. Eh, diggante man ak Alboury looloo tax mënuma cee commentaire waaw. mais lan nga ko yóbbante. lu ma koy yóbbante bariwul mu ngi mu ngi mu ngi def vidéo de publicité maa ngi koy xaar chauffeur Kumba xaar ko virage. yaa ngi ci virage bi nga koy waaw chauffeur Kumba xaar ko virage. am nga chauffeur bu mun dawal te munul arrière mooy man. Léo oto première rek laa ca xam du ma ca arrière bu ma naree arrière damay dem bu rond bi ma def ko nii. Oh, kon yow doo demi tour. déedéet damay def nii rek wendeel ko waaw looloo tax du ma ci wax moom waaw. mais nag am nga combat bu métti. combat boo xamante ni ne amateur yi dañ ko lan bi moo ko bëgg. combat bi dañ ko bëgg. yi. ah amateur yi luñ ko man man mii nara mi nar lekk xaalis bi maa ko gën a yàkkamte moom am na moom waaw kon kon bu dee mooy fee sama mbàq bi bax mu sawar kon man la gën a man la gën man la gën a man ko baax na ba ci waaw non non problème waaw yow dal jàmm rek ak ak gërëm ngañ ñoom ngañ waaw di gërëm woo ñëpp ci combat bi bu dee confirmé na bu dee confirmé maa ngi woo ñëpp ku ko fekkul danañ la bàyyil benn benn bang bang saay waaw comprendre waaw waaw non arbitre baa ngi wax ak ñoom bébé xay ak prince <laughs> xale yaa ngi noonu arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ prince bébé xay prince mbokk yi booy xool moo xaw a ëpp taxawaay moo sut am na lu ñuy wax ak moom am na lu ñu ko jox li moo la ko jox wala lu mu ko jox prince Bébé Xay suul na ko ci digg géew dëgg na ca tànk ba eh kii lu muy def ci digg géew bi prince ak Bébé Xay eh prince am lu mu ñuux ca ngemb la combat bu naa neex a noonu abi bi laaj na leen abi silve na prince Bébé Xay prince wàcc na ba tollook moom Bébé Xay ti suuf ngay lewaatoo ñoot naa ne daañu xeex dóor ko laaw na ko eh Bébé Xay da koo bëgg jàpp diggante njool ak ndaama la diggante njool ak ndaama la eh Xay jël na ko jël na ko da koy daan na ko waaw waaw eh Bébé Xay daan na Prince daa jël tànk ba dëj na ko waaw daanu nga kay benn cong la benn cong la mu jeex benn cong nee na ko bàyyi ma Bébé Xay daan na Prince du courage làmba ngi noonu làmba noonu waaw

combat spécial baa ngi noonu jël fuu bébé jël fuu bébé jël fuu mooñ féete à droite reculé na waaw waaw nee na gars yi jóg leen bébé taya xaw la bébé jël fuu eh, <laughs> xalam ma boobu la waatoo <laughs> la ma ngi noonu Bébé jël fu Bébé jël fu jël fu moo ngemboo ngemb lu vert li Bébé Teya moo xees féete ñu à gauche jël fu lewaatoo bi bar na lewaatoo bi bar na Bébé Téya na léegi jël fu Bébé Téya ñoo ngi di demee wet jël fu Bébé Téya Bébé na léegi jël fu dooragul Jolofuu Bébé Téya jël na tànk ba jël na tànk ba jël na tànk ba da koy dëj daan na ko benn congo la Bébé Téya na ko Bébé Téya na tànk ba Bébé Téya na jël fuu Bébé Téya na ko benn cong la làmb ja jeex grand combat ba ca des. tam membre yéen leen yéen a ko moom boo le benn communicateur wala benn reporter maa ngi ci biir reporter yi maa ngi ci communicateur xam nga ci dara kon bés bi seen bés la et puis ni ngeen mobilisé woo tam kontaan naa ñu taxaw bokk ci ñi ñu tete yow. waaw yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na en tout cas kontaan naa kontaan naa ci yéen lii lii bu leen neexoon du leen ci fekk du dëgg. waaye yàlla nag mooy dogal tey it yàlla dogal na tey maa leen di ñaanal yéen ñëpp kenn ku nekk fa nga ne yàlla nga fa yàlla yëkkati dafa la fa promotion. communication déedéet mais bàyyi dina moom na ni xam naa ne lu ci nag lépp xajul ci cin bi nan ma baal waaye kii nu ko tuddee nag bi sama lépp loolu la wax waaw euh, jërëjëf Baye Balla Mbuub euh, tubaabu jox ah tubaabu jox numéro 2 grand combat baa ngi noonu journée Mouniang production 30 janvier arbitre baa ngi laaj ay juge am combat bi jox ci Toubabou Dior Junior ak Bébé Jackson arbitre bi sifflé na 18h18 grand combat baa ngi noonu Toubabou Dior Junior Bébé Jackson Toubabou Dior Junior moo ñu féete à droite ngeen moo ngeemul xonk Jackson moo ñu féete à gauche ngeen moo ngeem wu naat bi bokk Toubabou Dior yi booy xool moo xaw sut tuuti waaye Bébé Jackson moo ko xaw a gën a gàtt tuuti Toubabou Dior wàcc na ba tolloog moom ñoo ngay lewaatoo Toubabou Dior teg pied gauche. Bébé Jackson teg daw na jël ko eh. eh Bébé Jackson xanaa daa mer door na plaqué na ko plaqué mbot na ko eh xale dañuy bëre mbot na ko moo nga jël tànk ba sikkiwaat nañu mbotaat na ko plaqué na ko da koy daan tubaabu joor plaqué na ko Bébé Jackson tubaabu joor daan na Bébé Jackson bàyyi jàmbu xoolal yaa ngi koy gaañ yaa ngi koy gaañ bu ko gaañ bu ko def noonu tubaabu joor. Bébé Jackson tubaabu Dior daan na Bébé Jackson plaqué na ko mu daanu tubaabu Dior daan na Bébé Jackson